كما براما براما كما أبيكو تيام ولا الفناء موي ديخ تيال يب كلمات مترادفة على معنى واحدة على معنى واحد مراده مرادها مراد الكلمات هي الانتماس الكل في ذات الله تبارك وتعالى سو ديغي اوبيكو الفتح ولا وصول ولا فناء اي بات لي تيغالو واي سين تكتال بن تكتال لا موي نيت كي دم با جيخ سي يالا با دوتو غيساتي لودول يالا لول نك mën nañ ko layal ci na yonent bi nee ne cant bi yàlla gën a kontaan ci sant yi mooy cant ak Abdoulahif Abdoulahif benn waay la woon def doon tukki yor gëléemam mbooleem lam yoroon ci bagaas ak lekk ak kay naan yëpp moo ngi ko takk ci gëléem gi moo ngi ko ëmb teg ko ci ko gëléem gi mu dem ci àll goo xam ne mën naa dox ñetti fan wala ñeenti fan du gis kër du gis dëkk gëléemam gi ko mu wër ko ci àll yi ba sonn gisu ko xiif na gisul gëléem gi te mënul dox fii ak ñeenti fan te lekkul mar na gisul gëléem gi te mënul dox fii ak ñeenti fan te naanul affaire bi jaaxal ko ba mu waree ba sonn ba xam ne dara desatul mu tëdd noppaliku mu dal di gas benn pax mu ne comme bëgguma di dee fekk kenn suulu ma doonte ci àll la naa gas suul sama bopp maanaam mu gas tëdd ci biir pax mi xaar dee gëléem gaa koy wër gëléem gi ñëw ba tiim ko ba ko gëléem gi tiimee mu xool mu mel ni xayal la ci moom lii olof di wax lii damay gént xaaral ma ñoppati kaata sama bopp xool ndax lii dëgg wala du mu xool gis gëléem gaa ko tiim mu bëgg kontaan bëgg a sant yàlla mu ne laka laka alhamdu rabbi an laka alhamdu anta abdi wa ana rabbuka sant naa la yàlla anta abdi yow yaay sama jaam wa ana rabbuka maay sa borom sant naa la yonent bi nee sante googu la yàlla gën a li waral lool waji dafa contane ba daldi di jaxase maqaama yi mom mu am intimaasul kulli ci gu yalla gi ndax contane ndax bég dem na yéeg na léegi ci maqama rububiyya yalla gi ngir bég ngir bëgg sante yalla lool nak nit dana wax sax loolu xel manu ko deg waye nga bal ma rek ci misal jiini mbay kenn ko nek xam nako mu nekkon ku yalla ubbi muy dimbale jamu yalla ben way ci luga am macha allah am eh, jabaram am doom dërëm fanaanul ci poche bi taalu paas bu mu paasee dem Dakar pour lijjanti ji lim ngéntee sax amu ko mu taxaw ci télé bi di bëgg a dem Dakar pour di ut oto bu ko yóbbaale jili mbay romb mu yëkkati loxo bi e yóbbaale ma jili mbay ne chauffeur na taxaw jili mbay ngi ci ginnaaw mu ñëw dugg toog ci kanam waa ji nag mu ngi xalaat su demee dakaar ban ruq lay dugg ba am lum ngéntee daanaka diggante Louga ba Dakar waxul safoor bi nag ne ko sëñ bi yow yaa ngi sëgg rek mbaadu dara mu ne ko wallaay sama jabar am doom te dërëm yoru ma su ngeen ma yóbbaalewul woon du ma am sax nu ma demee eh, Dakar jili mbay dégg na loolu te ku doon dimbale jaamu yàlla yi la yàlla na ko yàlla yërëm mu daal di jël enveloppe xëy lam ci def man na ñetti million te lolu juróomi dërëm la ci mom ndax da ngay xamné nekul lo amul yëpp amul kon so amul fanaaw yeggo ci yàlla bur wax fanaaw amul jiili mbay 3 millions yi juróomi dërëm la ci mom te xëy ku bëggoon génné ci 3 millions dina jafe misal la mu de jël ko jox chauffeur bi bi waji waccé mu ne ko demal joxal mako dafa xaar ba waji ji wàcc mu jox chauffeur bi waji mu ne ko demal joxal mako waji jël chauffeur bi jël xaaliss bi ñëw ba yegg ci ci mom ne ko sëñ bi am li 3 millions la pour nga dimbali sëñ bi moo la ko jox pour nga dimbali kooku mu ne sëñ ban mu ne ko jiili mbay la mu ne jiili sallallahu alayhi wa sallam ba ko waxee jiili mbay la sallallahu alayhi wa sallam la wax. jóge na léegi fi mu nekk ni yóbbu na Jili Mbay ci ngir fanaaw ak kontaan ak bégte ca yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba biñ tuddee Jili Mbay mu ne sallallahu alayhi wa sallam waaye waajee baax eh, imam ba waxturaa yi bëgg a dab te tudd nga fii xam naa ne kooku Cissé lay sant mën na sant lu may Cissé wala Touré eh, <laughs> imam loo bëggoon nga leeral ma mel na ni fanaaw mooy wam ma nit ki dem ci jeex ci boromam muy xam yàlla mm-hmm. wax nga ne tuddee nañ ko ay kabaat yu bëri mm-hmm. mais maanaam la mutu su sooy sofiyanke yëpp ci loolu lañ moom matu jëm ca mm-hmm. bon léegi dafa am lu ñu tuddee xam yàlla mm-hmm. hen hendal mutakallimin mm-hmm. nga xam ne ñooy philosophie xam yàlla googu philosophie yi di woote noo ma koy tënkale ak xam yàlla gi sofiyanke yi woote waaw bokkul parce que philosophie fi philosophie yi seen xel la ñuy demee te xel am na fu muy dem yem foofa mënul passé foofa xel dañ koo tënk yàlla dañ koo tënk luñ tënk mënul ma mënul mënul wër war manul ixaata loo xam ne dañ koo tinki ci wàllu misaal woykat bi nee ne euh, falan yuxiita bil jibaali man zahab yuridu waznaha bi misaani zahab ku jël doju or yi ne ku jël doj montagne yi nekk ci désert nga bëgg ko peese ci peesukaayu or gu ndaw gi nga xam ne moom lay ñuy jaay or di peese yaakaar naa doj bi du ci mën a dugg moo tax mu ne falan falan yuxiita bil jibaali man zahab yuridu waznaha bi misaani zahab mooy fii xel dañ koo tënk comme niñ tënkee peesukaayu or boobu yàlla dañ koo tinki te mu rëy gën a rëy doj boobu moo tax xel manu xam yàlla te philosophie yi seen xel la ñuy utiliser ñun nag maarifa billahi bi nga xam ne moom lay mutasawifine yi di wax nekul ne dafa teggu ci xel dedet dafa teggu ci alquran ak sunna yonenti bi alquran man na wax lo xamni sa xel nanguwu ko te fekk deug la sunna yonenti bi man na wax fo xamni sa xel yeggu fa fekk deug la waye philosophie lu seen xel jàppoon rek ñom lolu bokku ci ba tax dañuy dem ci seen bir xam yàlla dem bané je jee moor xam nga nit ci newon woon na jee mort yàlla dee kon nga xamne ne nekkete ñoom dañoo tabax seen philosophie bi ci lëndëm ñun ñu tabax suñu philosophie bi ci leer kon philosophie ñaar la al falsafatu falsafataani falsafatun mabniyatun ala nur wa falsafatun mabniyatun ala zulma philosophie ñom Descartes ñom Karl Marx ñom nit ci sen philosophie dañ ko tabax ci lëndëm moo tax ñuy dem lélé di ray yàlla so xolé Socrate mo jëk wax ci walu philosophie نانا اعلم اني لا اعلم شيئا cheyan loolu la wax loolu la mujjee من mu ne man xam naa ne man xaw ma dara xam naa ne man xaw ma dara Socrate moom mooy sëriñu nga gis fikra bi di daw ba yegg tay tay lañu gëna évoluer waye ba légui pour ñu découvrir yàlla day jafe parce que ñom yàlla dañ koy wër ci seeni xel te yàlla ëpp na xel. tay tey imaam waxtu yu dab nañ légui nga dafa am ben question bo xamné bi 1 minute mo ñu dess Eh, ñiy tu ñiy weddi tasawuf mm. di yëkkati waaraami tuuma dañ leen koy tuumaal loo ciy tontu. dañuy wax ne xam-xam bi ñuy tuddee xam-xamu sufiyanke mm. wala mu tasawifoo ne yi li woote xam yàlla fanaaw mm. ak nuñ ko mën di tuddee ñu ne du xam-xam boo xam ne ñoom ñoo ko créé du lu cosaanam mi ngi dellu ci almajusi mm-hmm. dellu ci buziya wala dem dellu ci lab abe yi ñoom ngeen ñoom ngeen ko jëlee ndax loolu wér تصوف نياري فصول تصوف إسلامي أك تصوف غير إسلامي أفا ينتي الله محمد دينيو أمون تصوف أمون صوفيزم أمون صوفيزم بوخم نرفا تبخو كي مسيحية أمون صوفي بوخم نرفا تبخو كي يهودية أمون صوفيا بوخم نتبخو كي مسيحية تبخو كي يهودية موي صوفيا بوزا بوزا بن نوائلة موم موم موم الفكرة البوزية تا شين ñoom liñ gëm seen tasawuf mooy nit ki day bàyyi lekk bàyyi naan ba ruuxaaniyatam gañ a yaramam ma commencé naaw ci jaww ji ñoom fekk naawagoo ci jaww ji rek maanaam yeggagoo seen objectif yi ñooñu naaw ci jaww ji mooy seen objectif suufiya boobu bokkul ak suufiya islaami am na ñuy tuumaal tasawuf islaami ñuy wax ne tasawuf islaami euh, euh, euh, tastaqi min juzuri التصوف الإسلامي يستقي من جذور بوذا والطاوية والديانات الأخرى nga xam ne maa qabla al islam naka njëkk avant yonent yàlla Isaa di juddu soo xoolee taawiya tasawuf taawi amoon na ñoo ngi askanu ci diyaanaati siiliya yi ñuy tuddee taawiya eh, ki ki ki mat ci ñoom ci góoru tasawuf ak taawi mooy kii mën a naaw ci kaw jaww ji nekkoon nañ balaa Isaa Isaa di juddu ñetti téeméeri ak trois cents ans ñooñu seen tasawuf bokkul ak tasawuf islam yi ñun bokkuñu dara ndax ñoom gëmuñu yàlla ñun gëm nañ yàlla ki nga xam ne da ngaa gëm yàlla di dem di raxas sa xol ci lu dul yàlla di setal sa xol ci lu dul yàlla ba yegg ci ma maxaama gu ñu tuddee fanaawu ak maarifatu eh, al maarifatu billah doo mën a bokk ak koo xam ne gëmul yàlla xamul yàlla kon suñ tuumalee ñu ne ñun suñ tasawuf bi ci ñooñu lañ ko jëlee dañoo amul pexe waaye nag moo ngi mel ni maa ngi fàttaliku Euh, euh, police bi arrete woon benn chauffeur bu doon dawal daf ko gis rek xolam yeenal ko mu bañ ko mu ne kii danaa ko jàpp mu ñëw kayit bu mu ko laaj kooku jox kayit bu mu ko laaj kooku jox bi pare paree mu ne waa ji loo may xoole waa ji ne ko ah loo may xoole moom war a waratu see nekk lu muy firi mooy comme que kii am na kayit yëpp te bëgguma koo de bàyyi mu dem naa ko créel mu ne ko loo may xoole ñoom tamit jaar nañ tasawuf fu nekk ñu fekk sottiwul léegi lii mbir mi mooy ñu ne tasawuf bii nii ñoo ngi koy askanal tasawuf yi nga xam ne mooy buuziya la tasawuf taa'iya la tasawuf gannusiya la tas ndax ndax dafa am tasawuf gannusi am taa'i am maanawi yooyu am. Ah, imaam xam naa ne buuziya gannusiya yooyu dañ koy jàppal edd beneen yoon waxtu yu jeex na takk yan kàddu ngay tàggatoo yan kàddu ngay dénk. Ah, di nuyu mboolem xeetu yonti yàlla Muhammad di wax ñun mutasawifina yi ak salafiste yi ak chiite yi ñun ñëpp. suñ ciosan moy alquran ak sunna yonent yàlla muhammad na kenn ku nek respecté sa morom bañ di nga jàpp ne lam nek deug na ndax kullul aymati min ma'in wahidin akhadhu wa ma akhadhu an il ahwaai yambuuhum diinu nabiyi muhammadin lamma ata bi sunnati al gharra'i way kat binen kullul aymati mboolem jiti ak sangi min ma'in wahidin akhadhu ci ben mbell lañ jël wa ma akhadhu an al ahwa'i jele wuñ seeni banexu bakkan yambuuhum diinu nabiyi muhammadin lamma ata bi sunnati al gharra'i ñëpp yeb ñongi tanke ci xaqiqatul muhammadiyya moy ci yonent yàlla muhammad sallam kon ñun ñëpp nañ xam ne ñoo bokkul islam bi ci ay ay jullit lañ salafiste yi ay jullit lañ suufi yi ay jullit lañ waaye man rek maa nekk jullit yow nekk jullit yaa ngi ci bidaa yaa ngi ci shirku mushrik haram haram loolu mooy firi ne xatal nal kaafira waxo yu salli salaatal asri rey naa yéeféer ga boobu moo ngi julli tàkkusaan kon xamal ne ka nga rey du yéeféer su nekkoon yéeféer doo ko fekk